Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi ngay njiitu nag kuréel gi ëmb metre nageur yi nga xam te ne ñoo nekk fii ci Sénégal ñu gis nag ne lab mi dafa gën di bëri euh, fi mu toll nii ay tout tànk yoo xamante ne ñoo ngi lab ci géej gi euh, pour yow lan moo waral euh, lu ni waa waaw li bokk na ci facteurs yi gën a mooy privatisation bi nga xam ne privatisé nañ ko plage yi nga xam ne moo nekk mm-hmm. autorisé. aaraga yaram léegi nag plan bu fekkente ne accessible ci population bi accessible tul ci secours yi léegi ci plage yi ñu la loolu moo indi cas de noyade mhm. ndax gis nañ euh, bi nga xamante ne am na ci corniche ba waaye tamit ab euh, tout tànk euh, nekk ci lycée Birago Diop bi nga xamante ne dafa mujje ñàkk bakkanam ginnaaw ga mu labee nag ci géeju Mermoz mhm. ñu ngi profité di jaale njabootu euh, élève boobu nga xam dafa ñàkk bakkanam ci ci ci plage bi mhm. waaw mais plage boobu euh, dañu ko classé interdit maanaam dañu ko tere ndax li tax ñu tere ko mooy plage la wax boo xam ne bokkoon na ci ñi di autorité mais ginnaaw ba léegi nit ñi duñ ko dëkkee jël ko sëkk ko léegi danger yi dafa gën a yokk ba pare plage bi sax léegi nag pour nga accéder fa problème la léegi nag loolu moo moo tax dafa danger la ci xale yi pour ñu fexe bés boobu voilà donc privatisation bi bokk na ci élève boobu li ko labloo voilà parce que fii nga xam ne FS bi nga xam ne moom lañ tëj léegi amatul léegi courant la am mais amatul léegi vague wàccee donc yooyu yëpp yoo xam ne day favoriser ces cas de noyade là alors ban bilan lañu mën a jàpp ren ji jëm ci cas de noyade yi. waaw actuellement nii am nañu ñaar fukki xale euh, yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi le mois de d' avril ba léegi donc lu ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu bu baax te di wax autorité yi ñu gën ci taxaw xale yi parce que pour continuer bi bilan bu catastrophe la ñu am. Mhm. en tant que président nekk euh, njiitu kuréel gi ëmb maître nageur yi nekk fii ci Sénégal lan ngeen jot a def euh, ba fii ngir mën a limiter dégâts yi. waaw li ñu jot a def en tant que de baignade du Sénégal xam nga la sécurisation des plages c'est une compétence transférée maanaam état bi ko collectivités territoriales yi nga xam ne ñoom dañoo am façade maritime maanaam dañu jàkkaarloo géej gi. Mm-hmm. ñoom ñoo war a euh, former ay médecins ñoom recruter leen teg leen ci terrain bi di leen fay pour ñu encadrer xale yi voilà léegi nag ñun dañu demoon gisi euh, maire yu bari yoo xam ne donc seeni doon amuloon surveillance ñu fexe ba ñu commencé teg surveillance foofu ci plage yi yenn yenn plage yi nag laa wax mais du plage yëpp léegi nag ñun liggéey boobu la ñu commencé def par rapport ak euh, euh, sécurisation plage mhm. nañuy jéem a encadrer xale rek comme ñu ñëwee ñu mën a nekk en sécurité waaw maa ngi ne woon euh, nan la ñu mën a fexe ba limiter li nga xamante ne wala sax éviter nit ñi nga xam te ne ñoom ñooy ñëw te dañuy bëri ci plage yi nan ngeen di organiser woo rek ba nga xamante ne di leen mën a limiter ci ni mu waree waaw nit ñi nag buñ fekkee voilà dina leen encadrer leen parce que âge dafa am toujours woowee recommandation ak ay interdiction maanaam lu ñuy digle ak lu ñuy tere donc daal bu ko ñëpp respecté rek je pense que ñëpp dina nekk jàmm mm-hmm. voilà mais bu ñu ko respecté aussi ñun dañu leen teg ci yoon voilà ndax xale yi moom bàyyi lu leen neex ñu koy def ci plage voilà ñu moom am nañ formation bi am nañ xarañte boo xam bu ñëwee dinañ mën a délimiter les zones de baignade ba kenn du ko dépassé. voilà mhm. ñu ñaan rek ñu alors yan jafe-jafe ngeen di euh, jànkonteel euh, léeg-léeg ci terrain bi. jafe-jafe yi mooy ñàkk respecté consigne de sécurité rek voilà mais bi ñu loolu amuñu benn jafe-jafe mais nit ñi bu nekk at li ngay ñëwee ci parfois nga tere nit euh, ne ko fii mu dem dépassé boobu loolu moom wax dëgg yàlla ñun ah, am nañu maîtrise boo xam ne aussi donc dañ lay tax ci yoon bi voilà donc daal euh, jafe-jafe la ñu am ak ci usager yoo xam ne mhm. yàgg nga assisté nag ay cas noyade nan ngeen di intervenir rek ngir euh, ki nga xamante ne moom moo euh, lab mu mën a tamit dellu si wat waaw euh, pour loolu wax dëgg yàlla nag sauveteurs yi formé nañ leen euh, bépp victime catégorie boo xam ne am nañ ko ñu mën ko activité ndax jàng def nañ pas mal formation yoo xam ne wax dëgg yàlla même bu nekk si étape grave sax dañ lay avant waaw bu fekkee ne kaa bi dafa graaw nag nan ngeen di def da ngeen di woo woote secours wala nan lay demee. waaw xam nga xam nga ñun ci dëkk bi voilà même bu dee ne cas boobu mën nañ la ah, jàngal nañu ko mën nañ la aj nga xam ne wala ambulance bi ñu yëgee donc ñu jébbal leen waaw. Mhm. alors heure de travail yi nag ban heure ngeen di ah, tàmbali ci géej gi. voilà loolu loo xam si madame parce dafa am heure léegi sangu bi dañ ko organiser neuf heures lay commencé jeex dix neuf heures te ren dañ gis loo xam ne képp koo xam ne euh, yaa ngi sangu au delà de dix neuf di nga jàmmaa défense et de sécurité parce que déjà wax lañ ko intérieur ne ko wax dëgg yàlla dafa am ñoo xam dañuy am di organiser di ay affaires yi xaw ma benn koy voilà donc formellement léegi nag képp koo xam ne euh, da nga fa ñëw neuf heures ba dix neuf heures bu métti naa jëlee seen bagage ba sa bagage balaa la gendarme yi jàpp wala police voilà parce que xale yi tamit ñun duñ leen bàyyi ñu neex ci plage yi ba pare ñu indil ay cadre doyaan voilà donc loolu bokk na ci facteur yi indi cas mhm. parce que boo sangoo guddi wala nga sangu heure boo xam te aar dem na yoonam yow nga nekk yow tu tu seras supposé que dans de noyade voilà. Mhm. Mhm. ban message nga leen di lancer rek. waaw may ñu gën a respecté sécurité yi waaw su ko defee daal ñëpp nekk ci jàmm. voilà ñëpp daal nekk jàpp jàmm parents yi aussi

maa ngi leen di jaaji jaajëfal